Sénégal ay day eh, war nañoo dem maye ji dara de enquête yéene kaa ne en tout na waa alerte rouge mardi day jamono koy bëgg a am na sombooro de libération yéene kaa ne fan day ginnaaw ba ndaw si réeré waaw ma ne la neewam ba day mujj nañ koo for ami ko la ba lay wuyoo yoroon juróom benn bant wax tollu woon ci juróom fukki at ak ñeent allahu akbar ma ne la altine ji ñu génn day lañ ko déedéet ñu suul genn wàll yaramam ngax la ilaha illallah sa benn tool lañu ko def ma ne la gis ngeen néew ma day daanaka sax daanaka da ngay maar di taale yàqoo yàqu ba dama ne foofee sax lañu ko mujjee denc fa lañ ko mujjee suul yéene kaa gi ne waaye day ba mu réeree wala bañ ko faatee waaw benn fan lañ ko teg gendarmerie waaw daal di leeral lépp rek la ilaha illallah ma ne la nga xam ne kon ñu ngi laam-laamee ne moo ko def day talaata jëkkoon lañ ko gis allahu akbar te guddi waaw Mamadou Sëri Bal dalay wuyoo toll ci ñaar fukki at yàlla bañ ko laajee day xale ba mujj naa wax ne moom la la ilaha illallah la ilaha illallah ma ne la gis ngeen rey ko ni ba rek la mu wax waaw mooy ne ay xamal bi ay daal moo doxoon ci digganteem ak Ami Collé Ba waaje ne saax daal di kon yóotu ab sik ak peel waxuma peel de la daal di kon yóotu jam ko ndaw sa kon ay yoon yoon laa la wax ginnaaw gi day la jël nag moom Ami Collé daal di suul la ilaha illallah allahu akbar te jamono jooje la ko tujee yéene kaay nee na fukki fan ak juróom day moo dox suñu diggante bis bu mag ba bis bu imam Alioune Badara Ndaw ca la lépp di leer waaw nit ñaa ngay ñaan ngir Alioune Badara Ndaw moom ñu génnee ko kon te kaso ba mais dama soxna kan waaw nee na gis nga tribunal rek boo xam ne dafa normal rek tribunal bu normal ah ma ne la mënta imam Ndaw laa la wax ba soppi ne coowal imam Ndaw moomee waaw

day taali maar day taali fi mu nekk ni lay doy na waar parce que coowal Karim Wade mi lee ak Khalifa Sall waaw day yàgg rek waaye day taali bombe à retardement la dama ne yàgg waaye day tàkki laa la wax ca kaw waxuma la nag yeneen i ingrédients yi nga xam ne ko ña nga ca biir a daal i gars yi dee média gi ne tribune waaw te xam nga ne laata kon dugoon na ci am ku xam ne kon maar day taali ay manifestation yu dul jeex di xeex ngir troisième mandat Abdoulaye Wade bi bu mu lool waaw Dakar njaay jël joob ñu jël ko def ko doom jaxat-jaxatee ko ak yeneen gox sax kon ci biir réew am ci ay kër yoo xam ne kon dañ leen a taal am ci ay bërëb bu buur di ay édifice public yoo xam ne kon dañ leen a jaxat-jaxatee yàqte leen complètement am ci ay doomu aadama yoo xam ne kon jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu métti am ci ñoo xam ne kon deg lañ leen loxo waaw ma ne la gën a gàtt fukki doomu aadama ak ñeenti day nekkoon nañ ca seenu bakkan dee inna li waaw la fi samp waaye bi Macky Sall ñëwee ak léegi ayaa bi Macky Sall ko dus ma ne la kii fii dara soppeeku laa la wax maar di taali waaw waaw firnde yaa ngi nii ay doo xoolal leen ma dossier Khalifa Sall bi lee ak Karim Wade mi nga xam ne kon génnee nañ ko ci liste électorale yi waaw mooy lan jëkkëroo ba nga xamante ni nii waa réew bi daal dinañ koy daan juróom benni at yàlla kaso yaa waaw mais Maître Sidiki Kaba mi nga xam ne kon moo nekkoon ministre de la justice ay ne Karim Wade mi lee mën naa bokk ci ay élection ñàkkul dara ci ay droit civique am ak politique am waaye affaire lañ ca teg kara place Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall waaw ne Karim Wade du doon candidat eh way Samba ñu teg biir Aly Ngouille Ndiaye ne Karim Wade nekkul ci liste électorale ya eh way Samba te moo ni Sénégalais yëpp seetaan nañu ab vidéo Karim Wade ci boppam kon di inscrire looloy dëgg waa lii tam mooy lan xam jërmini yéene kaay ne bu dee Khalifa Sall day waa CEDEAO waaw ma ne la dañ koo jox dëgg sur toute la ligne laa la wax commencement ba fin tribunal Afrique sowu jant bi Khalifa Sall la jox dëgg waaye nguur yaa ngi def kéem tolluwaay gàttanam laa la wax ngir ma ne def liste CEDEAO yow yii santaane kilifa yi jiite réew mi ne dañoo fàtte ne loi internationale yoo yee ñoo féete kaw loi yi ci biir réew maître Ndeye Fatou Touré ci bak sopili ne dama ne Sénégal mën ta ñàkk def li CEDEAO santaane loolu mën ta la nekk kay mooy xalifiste yi nga xam ne nag maanaam ñoo nekk ca grand waaw démb dee dajee nañu ndaje mu rëy ma joojoo ak ñama àndal waaw nee nañu xalifa sàll mi waaw caabi féetewu ko ginnaaw di otage la dañu ko ne loolu du yoon l'observateur

scandale financier Macky Sall na leeral coowal SAR société africaine de raffinage Macky Sall na leeral coowal pétrole tungile Macky Sall na leeral coowal Adama Togo Macky la ca ca wàllum loi danañu wàccoog moom ci septembre bi de Le Soleil yéene kaay na dëgg la code pétrolier bi day président démb ca conseil des ministres nee na ne lépp gaaw bare laataa weeru septembre di waaw waaw Macky Sall kay teg na ko gouvernement bi nee na leen nañ gaaw de Seydina Fall de Vox ko yaakaar ne présidentielle bi ñun waa APR gagné nañ ko de une na directeur de si yéene kaay ne jaaykat yi ci kaw kon na muy yaatalee ay buntam nag ay këram ci Sénégal gi la ëpp na ne Auchan génn fi lañ ñibbi commerçant yi ne waaw parce que Auchan ñuy bëgg a rey danañu organiser à marche laa la wax ngir Auchan <laughs> alaaji man moom coowal Auchan du ma ci débat bañ ne français ñoo ko moom ca laa ca pare boo paree mën na la alaaji tëjal Samsung bi leen andil